vraiment maa leen di fay si des dana di fay mes amis loo mes amis des waaw tey suñu xarit suñu doom dañu naan ko délégué waat di kenn ci wàllu balaa Seck parce que moom nag di tàkkee fële ca États-Unis ak seen ak suñu gars say barkeel yal na yàlla barkeel sëy bi yal na yàlla bone seen jikko bone seen wërsëg may leen jabar bu barkeel ñu mag leen mu sant di barke seen awa salaatu salaam waaw man nag célibataire laa nag waaye célibataire nag bu xam bu baax la nag célibataire bu dëgg bu baax nag boobu rek ay casting mais casting bi lépp jeex na incha allah ndax xewu a dafa métti ma bàyyi ma seeraay bi rek takk jabar benn yoon incha allah conseil xam nga ne seer ba mën na conseillé mag yi na bañ a waajal moom bi toujours yàlla yàlla yàlla ba jàmm yàlla yàlla barkeel sëy bi yàlla sëy sëy yi jàmm ci aras bi ma njëkk a constaté ci xew yi mu damaa ñëw dégg dégg dégg son yu ak son aussi di jóg ci baas bi nag man ay waaye alhamdulilah rabbi alamin léegi maa tax ci jabar son aussi di jóg ne ci baas ba yàlla jàmm xanaa doo xam ne Sénégal bi gagne Sénégal bi gagne c'est l'Afrique qui gagne et suñu yëpp xew ne lu toll ni seen i départ yi ñu def fële ca Paris la finale le 29 juin ñu ñun ñëpp ñu ko war a sax tànk xam ne bu amee ndam ñoo am ndam bu amee defet ñoo am defet bu koy dégg na suñu grand bi naan boo xalaat loolu suba teel ñu ngi liggéey bu bay waat sax ak yu bëri Sénégal bi gën si ci borom lañ yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm le 29 bi réew si nag jàmm man dinaa ci communiqué dinaa dem ci réflexion si liggéey bi ñu ko incha allah amu fi xas amu fi si bët yi rek ñuy trouvé aventure bi ci benn waaye xaaral nga rek man xaw ma ko lan moo tax sama laa ko xaw ma keneen ngeen laaj keneen yéen laaj keneen keneen man mii laaj keneen mosuma ko ko def mosuma ko ko gis man dama ci fekk concept la voie de président ma présidence c'est le chemin côté présidentiel yéen yëpp mu gën di ko def ko def ay journalistes ngeen kii ne c'est si amay diplôme man yor ma diplôme monsieur si laa jàpp diplôme dara ñetti classe laa war a am léegi ay borom formalisme am diplôme ma dama dem Nations Unies jàkkaarloo deux cent cinquante président ci àdduna di taxaw di carrément bu dem Nations Unies lay yëg avion président man sama téléphone bi ci laa demee Nations Unies ci laa demee CEDEAO ci laa demee ko war a valoriser dama ko fulal ko booy saw sangam so bala dugg ñu ñu sa wan ko man foofu laa nekk so ay dama ci def la euh quatre quatre mois ginnaaw soo ko ab jumaay ba suñu génn MDS génn bu leer wax génn ko génn 30 secondes te ñoom ak des ñoo ko dee ak bàyyi man état laa nag lépp di laay topp ma ko sant ma nekk ni ma tuddi mun su baaxoo politicien yor ma carte affaire yor ma mais képp ku président sunu wërsëg boole ji dinaa liggéey teel rek dafa xaaral benn nag benn arrière benn retour dina ko liggéey teel rek comme ni mu mel ak waa Libalaaw Seck naam dana jaay liggéey teel ak gëm bi ñu ngi am foog liggéey bi ñu foofu laa ne. déet a si jox si jox sama xarit la si jox la may wekk si la may jox sama wekk ma ko. sii la ma lebal sama ma ko ndax fekk moom may way moom may sidi moom may sagal moom may yëkkati jaar na ci suñu plan ñu naan ko Matar Diop suba teel jàpp dara ci am na ci boo gisee at yii at yii suba teel yëpp fon ko bàyyi ko fii dafa am kon ak ak euh, Sonatel Sonatel day def fii mais at yii suñu suba teel ñooy def ñooy def kii bi prestation bi kon damay damay ci plan def avec Matar Diop suba teel wax nga ko yàlla kenn ñaare man néew ma ci compétition man ci mission laa ne compétition ma ku yàlla bind mais mais mais daa ko classe daa ko déggee loolu loolu ay ay raayam sa la du classe parce que dañu dala ba jël sama bopp ne ma ne ma loolu pare waaw pare ak invité loolu affaire da day nekkal soo rek maanaam loolu maanaam euh, euh, maanaam foo nekk ci ceeb bi rek nga xaar ma yàlla bu yàlla bi non du ay suuf man naa ma suuf yi yéen a jàpp ay minimisé ndax yéen a jàpp minimisé yéen a nekk man ne ma foofu yéen ay gars yi rek ñu gën a gars yi gars yi yéen ay gars yi rek la am des Sénégal yéen ay gars yi amul polémique ndax ñoom ñaar mos ñëw xuloo mos ñëw andelu ñagas waa tribune dëkk bët ñooy kaas rek ak ak supporters yi mais Sidi Diop moom defante amul soo gis mu maanaam Sidi Diop mosul wax lu ñagas waa c'est parce que mosul wax Ya, güey, quédalo, arrondissement la bokk Paulus Mbaye sama jàmbaar sama jàmbaar mooy sa maam Pawlish Mbaye sama jàmbaar

sama jàmbaar mooy sama maam Pawlish Mbaye sama jàmbaar mooy sama maam Pawlish Mbaye sama jàmbaar mooy sama maam Paulis maa la ko